A'udzu Bismillah bismillahi inna waliyalla qala rabbi sali sadri wa yassir li amri wa khulul waqdata min lisani yasau qawli barka baram tuba masa mbakra zikrullah mo len di fatali amal le 17 ñew bi tay fi wajale le 17 inshallah du amal cyant gu reuy def tennis club bu tuddu mega concert zikrullah parce que yenen tiant yi ndan def ay ay ay ay cant mbedd la quoi mais bi dañ ko bëgg défé tennis club tudé ko concert ci bamba ji concept bi di méga concert ci ak sikar sikarkatu ndar gi yépp képp ku yëkëti bat la ilaha illallah rek wo fi ci ndar ñu ngi lay wo ci bis bi programme bi waaw mi ngi tambalé 19 h jëm fajar waaw bëgg nañ ci wàcce ay bëgg nañ ci jàng alxuraan ci bis bi bëgg nañ ci wàcce ay kaamit bëgg nañ ci tëri ay alxuraan bëgg nañ ci jàng ay xasida bëgg nañ ci sant Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax pare bi waaw Massamba Gueye lañ koy wax Massamba Gueye xayral baraaya di ko sant moom bu baax ngir jàpp na ci bis bi bu baax a baax waaw ñu dëkk ndar rek ñu dëkk ndar am na ñeneen ñu dëkk ba sow mel ni ay abo bambakra gars yi sikar fii nii ci ndar la incha allah waaw ku mel ni Pabas Misbaax Taybu Aziz Ndiaye Njaw Daaru Salaam sikarkat yi daal bëri nañu yi féete woon ndar di ci woo ñëpp nag waaw di ci woo waa ndar ñëpp di ci woo waa ndar ñëpp di ci woo képp kuy yeew suba naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ni ngi lay woo ci bis bi nga ñëw dimbali ñu santale Serigne Touba ndax moo fi ne waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man la jëriñ njaga nekk ci organisation bi man maa yor organisation bi bis bi waaw daanaka bi mooy première édition am mu koy def anniversaire am dëppook anniversaire am mu nekk première édition organisation bi nag mu ànd seeg suñu ay bokk taalibe waaye mën nañu jiital ci bopp bi ndax géttu xar sax boo du bu nu bu nu àndee di dox dina am ku jiitu léegi nag bi nu àndee nu jiital ma ma jiitu organisation bi nag ñu ngi ci bu baax a baax ñu ngi ci organisation bi bu baax a baax daanaka li nu war a lijjanti ak li nu war a régler ak li nu war a fépp fu nu war a dem dem nañ fa lépp lu nu war a lijjanti lijjanti nañ ko lépp lu nga xamante ni lii buñ ko defee ci bis bi bis bi dina jëkk rek ñu ngi ci ñu ngi ci pexe yooyu. waa ci wàllum kaaraange moom daanaka am na nu ay vigile policier yaa ngi fi am nañu ay GMEG yëpp rek ñu ngi ci bis bi bi nag ñu ngi koy defee tennis club ndax euh, bis bu mel noonu daanaka comme ni nga ko waxee léegi rek moom mi ngi ko soogaa def te bëri na gars yi organiser dañuy tànt ci mbedd mi rek def seen concert bi nag ñu koy defee ci tennis club ci bërëb. mo waral tax il faut que mu am karange danaka 20h lay dor wala 21h jusqu'à l'aube di wo wa Sénégal di wo ñëpp rek képp ku nga xamanteni ya ngi déglu sunu kaddu dal ñu lay wo ci bis di jaajëfal ñëpp alxadimi mo don yenen yonent bi ga ya don badar di ñew moo siwli senami xeexe fa yallaahu jàng xasida ak alxuraan la daan xeexale borom moo siwli senami xeexe fa yallaahu li mu bind ci téere war fees ab otoray te yet boo ca mujj a mu yéem la yàlla bindee na nii ak ne ba nii laaj ceeb xanaa du sonn ci diine bay noppalu yàllaahu daa tagg-tagg borom nit ñee ginney bafar far talul bay yandoor fa yàllaahu jërëjëfe borom Tuubaa